mbokki yi hamil xamid nee na gannaaw sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ndigal suñu suñu sëriñ suñu lépp muy suñu sëriñ Ceerno Mouhamadul Bachir muntaqa taaha bu Cheikh Alhaaji Umar Alfouti radiallahu taala anhu ñu ngi nuyu mbokk yépp kenn ku ne turam ak santam ñu ngi koy ziyaar ci guddi gi ziyaara boobu nag la ñu dajale boole ko ñun ñëpp daal koy ziyaare sang bu tedd bi di Thierno Bachirou ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala yal na ko yàlla yàggal ci suñuy kanam amin yal na ko fi yàlla yàggal lool amin ndax yàgg gi muy yàgg ci suñuy kanam suñu njëriñ kese nee na tem temu ren bi liñ ci tànnoon mooy waxtaane taxawaayu moom ceerno ci taxawaayu lislaam njaafoɗono banndiraaɓe haalduɗaaɓe no mbaɗa annoncé wonno toɓɓere yeewtere hikka e ñalawmaaji ɗi ko yeewtude darnde jinnaaɗo o ceerno o e nder l'islam o wii darnde makko e l'islam fa tabaraka llahu ma sha allah goto foof ene yiito hen hoore muɗum nene taxawaye ceerno mahamadou bachir ci l'islam bi sant ñeel na suñu borom bi subhanahu wa taala kenn ku ne yaa ngi ci gis sa bopp o wi sote wi en mbi ɓesmu mawlana cheikh alhaji umar al fouti radiallahu taala anhu ɓesmu wuto wawi wonde foof goto fof ene yiito e makko hoore muɗum buni waxe njabootu mawlana cheikh alhabib marol fouti radiallahu taala anhu fu njaboot gi mun a nekk ci kaw suuf kenn ku ne yaa ngi gis sa bopp ci jëmm ji toog di ceer mahamadul bachir moutada o wii sowta wii woyi noon noon ko kanko woni khalifa mawlana cheikh alhaj oumar al fouti radiallahu taala anhu nee na nag mbir mi bu demee noonu nag ñun ñëpp war nañu xam ni comme moom mooy khalifa mawlana cheikh alhaj oumar al fouti radiallahu anhu do bange jikku e do bange gandal e to bange golle na ci walu jikku mom la ci walu xam xam mom la ci walu jëf yit mom la o wi so tawi ko to bange tariqa bu de ci walu tariqa hay tariqa goto o faltati e tariqa di keddidi bu de ci walu tariqa nak tekkani wul ben tariqa ci kaw borom o wiide wonno alqouranil karim wi en innama almuminuna ihwatum fa aslihu bayna ahawaykum sa yeehi to muriteɓe bo ɗeɓe temurit ni darde makko ene yooɗi toon tahawayam no farafet sa yeehi to qadri en koye bo ɗene ta qadriye tahawayam rafet nafat sa to layennaɓe bo ɗene ci darnde makko ene yooɗi toon taxawaayam rafet na fa o wii sa yehi e tijjaniya e denndaangal silsilaji tijjaniya o ɗemeti ɗariqa mbi moy ɗariqatu tijjaniya ci mbooren calalalu tijjani yëpp darnde makko ene yooɗi toon o wi kala almudo gummiɗo e silsil goɗɗo ari e makko o wiyatma ko ya jabbu silsil ma jotna pewna ha magge nene putari be bo xam ne ñëw na ci moom te nga bàyyi ko ci benen silsil ceerno lim lay digal mooy na nga dellu ci sa silsil nga teye ko baaxal ko rafetal ko o wii ɗum firtata tan ko kanko ceerno o fooɗanaaki almuuɗo o fooɗanaaki kadi ceernaagal kanko ceerno o fooɗaani almuuɗo o fooɗanaaki ceernaagal kono nag lii dafay tegtalere moom ceerno xëccul benn taalibe na ñëw ci moom te it xëccoowul tamit mbokku sëriñ kono noon alal la rokkiimo fof waaye nag ci loolu yëpp may na ko lépp nag o wii ɗum ko dokke allah nene lii moye suñu borom bi subhanahu wa taala o wii te koto bange so tawi koto bange diine l'islam islam ɓuureti wandu diine l' islam en jalti ɗariqa gellinani cikaaru ɗariqa jagguɗo e mo jaggaani lawol ko xamne ne jël nga ɗariqa walla jëloo ɗariqa so tawi tan adawi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ɓuɗe rek yaa ngi tudd baat bu set tedd bii saari e makko bonni ñëwee ci o jaggirto maa ko allah e laado allah ne jappi ngir mi Allah, ak yaron bi sallallahu alaihi wasallam so ka gando kaaldon don gandal ha ganna ko gando dee ñëw nga nek borom xam-xam fay wax o wi so tawi ka jom hakkille ko yewtide e maɗa e banggue haqqillantagal ha baama holko hakkille ma o nafata e maɗa mune budena borom helga bo neweti ceerno ndelay waxtane yow ci kaadulu xel ba nga mujj xam yow sa xel bi lan lay jëriñ ci yow o wi so tawi noon a anda haydara sa ari e makko o andinma hunde njaxaa naf ko xaalum diine maanaam bu dee nag da nga ñëw xamoo dara amoo dara mu daal di lay xamal sa diine nga dellu jëriñoo ko ci sa wàllu diine o wi sawoni ɓesgu o yurmoma o ara ɗo honono arɗo hannde ni ɓuuɗe jaɓonɗo mo daadi nenne ɓuura sersida comme nim fi ñawe tawi no wirini kanko e kasida makko mo yimi e ceerno ceerno ko jokkowo enɗam ceerno ko ƴewtotoɗo ɓesguji muɗum ɗum waɗi so goto e ɓesgu ngu dañi ñalomaji mbaɗi ɗi o ƴettan ko jawdi makko o waɗa hen ko goɗɗo watta hen motax ceerno wax limu wayta kasida mo way ko sérinen mbi ceerno mi ceerno ɗo basiru dafay jokku mbokk dafay nenne ko jabotam fu mu munta nekk te it du yem rek ci jéego dem seet ko déedéet dafay yëkkati alalam dimbalee ko njaboot ko ba lim ciy def keneen du ko ci def o wi ɗum noon so tawi almuɗo en yiɗina tolade a ñamtinat ko makko comme que noon la demee nag ab taalibe boo bëggee jëriñu da ngay roy jikko yu tedd yii eɗen ñaagi allah subhanahu wa taala ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala yo allah yàlla bàyyi lu yàgg lu yàgg ah mooy juutal mu yàgg yàgg lool o ara hitaande aroonde nde o tawa en ɗo eɗen celli eɗen cellira mo ñaw at miiɗi ñaw inchallahu taala mo fekk ñu fi fekk ñu ngi wér wérde Thank you. ceerno wi ɗum ko kanko tan haali ɗum e hoore makko kono ceerno yamirno hakkikilli makko no wayi muɗude e nelaɗo allah sallah alayhi wa sallam ko hadiya nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam yo yaltini ceerno nena kaddu yimo fi yekkati def ko wax rek ci jëmmi boppam waaye ceerno def ko doxol ndigal ngir cofeeram li mu màggee ci sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam